waaw asalaamaaleykum mbokku IYAT-TV ñi ngi jàkkaarloog Mamor Sarr chargé de sélection euh, fii ci Pastef Touba ñu nekk fii kër euh, honorable député Serigne Cheikh Thioro euh, moom nag mu am tudd tey doom ji mu tudde ke ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ñu jàkkaarloog Mamor Sarr rek di ko laaj yan gis-gis la am ci mbir moom nga xam ne am na yan kàddu nga ci yëkkati waaw jërëjëf Euh, yat ñoo ngi leen di hmm. ziar di leen bëgg bu baax hmm. di wax rek li xam naa lañ ciy wax du bëri hmm. dañ ginnaaw buñ ko rafetloo di ñaanal tout tànk bi euh, yàlla may gudd fan ak wér di ñaanal ay waajuram aussi yàlla may leen gudd fan ak wér ak fekke di ñaanal aussi turandoom yàlla may ko gudd fan ak wér euh, liñ ciy wax rek mooy kóllëre la lii day symboliser ne diggante Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ak sëñ Cheikh Thioro doon tut politique maanaam dépassé na les cadres politiques hmm. nit ki boo demee ba koy tuddee sa doom rek am na lu la convaincre ci moom ba nga xam ne lu doy ci moom hmm. nga wóolu ko ba jox ko sa turu doom hmm. ndax tour moom jàpp naa ne kenn du ko joxe noonu koo ko tudd koo tuddee sa doom rek jàpp naa doy na la sëkk ci fànn yëpp moo tax kóllëre la dañu ah. ñan yàlla yàlla sàmmal ñu kóllëre googu waaw ñoo ngi koy rafetlu bu baax baax ngeen bokk ci parti bii Pastef mhm. lu mel nii euh, bariwul luñ koy daan gis ci yeneen parti mhm. donte daan na am ay benn benn mais bu ñu gisee jamono bii nii ni militant Pastef ak sympathisant yi di tuddee Ousmane Sonko doom euh, mel na ni daal loo xam ne phénomène bu bees la mhm. loolu tamit euh, yan kàddu nga ci yëkkati waaw man li may wax rek mooy Pastef dafa wuuteeg parti classique yi fi nekkoon ndax parti classique yi li ñu daan gis mooy mën ngaa ànd ak leader bi mhm. waaye du la doy ba nga egg ak moom fenn fi mhm. parce que nag maanaam Ousmane Sonko dafa doy gaay ci ci wàllu politique mhm. en même doy leen aussi ci seen wàllum diine loolu tamit aussi daf ñuy bàyyi xel ñu baax a baax a baax ndax ci problème li problème mooy Ousmane Sonko gaay yi li may dund mooy tey jii buñ doon woote imaamu jàkk sax gaay yi sañ na maam doy na leen doy goo xam ne mën nañ koo teg mu jiite leen julli hmm. mais politicien classique yi wala parti classique yi hmm. loolu amu ko hmm. doyel googu wala confiance boobu ah. mën naa nekk ci cadre politique rek mais cadre yeneen domaines yi ak vie privée yi maanaam daawuñ fekk muy loo xam ne nag phénomène la boo xam ne Ousmane Sonko xëy nag mbaaxam la xëy na lu ko yàlla defal la waaye daal xel daal daa mel ni sax day maanaam imaginer ko sax daal day day daal di jafe waaw ndax xel mënut koo takk ndax lu mel ni Touba tey jii buñ demee ba Ousmane Sonko di fi am ay cinquante nangam turandoo. Hmm. loolu day doon phénomène boo xam ne dafa extraordinaire. Hmm. mënuñu laa ñàkk a laaj donte xam nañ ne yàkkamti nga mais yaay chargé des sélections mënuñu laa laaj ñàkk ci li nga xam ne moom mooy élection yi ñu jëm. Hmm. dégg nañ euh, ay jamono yéen a ngi wax ne da ngeen a manqué li nga xam ne mooy ay euh, représentant bureau de vote tamit yeneen soññee yi nga xam ne war na ca am comme lu ci mel ni nit yi jëli carte yeeg yooyu noonu. waaw bu dee représentant yi moom fi mu toll nii alhamdulilah la ñu wax. Hmm. maanaam nañ ñaan niñ jël rek. Ah. jour ba ñu man ba mën a teew ci bureau yi waaye six cent neuf bureau yëpp am na ñu ñu fa teewal ci département Mbacké. Hmm. muy une première ndax gars yi dañ daan dem ba ci biir campagne bi sax di wut ay représentant mais tey moom avant campagne bi commencé. Hmm. mën nañu wax Pastef matal na ay ay représentant bi ci des mooy li ci des mooy carte d'identité yi bëri na sous préfecture bu Ndam. nañ ko ni ñi jël Hmm. loolu nag moom ci élection yi la bokk. waaw ah. ndax buñ ko jëliwut fii ba buñ ne suba la élection maanaam hmm. samedi ba nga xam ne moom mujj ci élection yi. waaw ah. ajjuma boobu joxe bi yem kon nañ dem jëli ko balaa booba. Hmm. te luñ gën a gaaw sax mooy gën a yomb ndax luñ gën a mujjee jàpp naa nit ñi moom day gën a xat. waaye léegi comme temps yi xatul nag nañ dem jëli seen carte yi moo gën a moo gën a yow. jërëjëf Mamor ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf. ba tey ñu ngi jàkkaarloog kenn ci euh, waa Pastef ba tey bu jaxate saaliw ñu jàkkaarloog moom mu ñëw moom tamit ci li nga xam ne moom mooy euh, tudd bi nga xam ne mi ngi xew ci kër sëñ Cheikh Thioro euh, ñoo ko déggandoo tudde bi nga xam ne tuddee na ko Ousmane Sonko ki nga xam ne moom mooy doomam bi mu am tey yan réaction nga ci def euh, Abdoulaye Jaxate Saliou waaw ah, sant yàlla rek sant yàlla sant yéen sallallahu alayhi wa sallam sant Sëñ Tuubaa bu baax hmm. di nuyu Sëriñ Cheikh honorable député adduna moom nii rek la hmm. buñ dee bu buñ amee xew bànneex ñu bokk ko xamee amee xew naqar yàlla na yeex donc lu mën da ñàkk ci adduna la ku gestu gis sa morom hmm. loolu yaakaar naa lu am solo la hmm. euh, tudde gi mu tuddee le président Sonko bébé tamit jàpp naa ne ñun ñëpp la ko defal parce que ay nit buñ dee ànd jël benn nit def ko seen kilifa te ko seen kanam ku def war ma ju jëm ci moom rek ñëpp nga ko defal tudde nag di olof yi daan wax loo xam ne waxi olof la sax waaye mën nañ koo wax ah. mooy nit ki nii tudde sa doom hmm. peut bëgg mu mel ne moom ay jikkoom doy na la hmm. ak melokaanam président Sonko moom dëkk xam nañ ko léegi ci jikko ju rafet yoo xam ne ñëpp seeral nañ ko ko ci baax ak jub hmm. ndax xam na sax kilifa gu may dégg ci réseaux yi rek mu naan xaw ma kan la waaye man ki may woteel mooy ki nga xam ne toog na ne 15 ans dugg naa ci bërëb sàngam te ma sàcc loolu rek ci valeur la bokk te nit yaakaar naa ku ko nawlu doo ko tudde doom rawatina nag Serigne Cheikh bi nga xam ne it Ah. ndax ku ko xam-xam ne ci famille bu baax la bokk tumurankewul kum tudde doomam hmm. su jëlee turandoo bi jox ko Ousmane rek kon xam ne am na kóllëre gu dox seen diggante waaye am na jikko yu rafet yu mu gis ci moom yoo xam ne bëggul ëllëg bëgg na ëllëg gis ko ci doomam jooju mu ko tudde hmm. suñ tur tànk bi rek suñu may ko mu hmm. ba fekke lu baree bari ba ay waajuram bi jariñu ci njariñam tamit njariñ lu lislaam gërëm li ma laaj léegi Mamor ci lay ñëwaat ak yow vague bi nga xam ne gis nañ ko ci ay patriote wala ay sénégalais sax laay wax ñuy jël seeni doom di ko tudde ci Ousmane Sonko loolu tamit euh, ban réaction nga ciy def. ah presque ramassé naa ko parce que nee naa la soo fekkee ne jikkoom neex na diin waaw ah. mu am jikko ju rafet am diine am lislaam ah. ci li tax ñu topp ko sax xañ na du diine ak lislaam ñu gis ne bokk na ci ñi ci gën a rafet jikko ah. ci ñuy woote woo politique ci Sénégal ndax Abdoulaye Wade ku xam ne président Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla yàggal fii moo dominé woon au niveau départemental fii nii militantisme mais mosuñu gis en général ku ko fi tudde doom nit ñi bëggoon nañ ko lool am na fu ñu ko tegoon waaye ak gudd woon ci xolu nit ñi ba ñu jël seeni doom di ko tuddee sonko nag tey mun nañ ne ay cinquantaine de sonko yu ndaw ñu ngi ci Touba Mbacké mhm. kon jàpp nañ ne loolu lu mu liggéey la moom mhm. te nag ci ci ci ci ci circonstance bu garaaw parce que bi mu doog a door daanaka diabolisation yëpp ci Touba lañ ko doon amalee mhm. di gëmloo nit ñi ne kii du murit du du ab wahabiste la du du nangam du nangam waaye loolu dafay wane rek nit ñi am nañ ay esprit de dépassement bu ñu toll boo xam ne hmm. xoolatuñ nit ñi di nax ci ay diw maag yow ñoo bokk dëkk wala ñoo bokk kër wala ñoo bokk sëriñ wala ñoo bokk nangam ah. waaye ça ngi xool rek ay yu rafet hmm. ñi ngi xool également ku man bëgg ñi ngi xool hmm. également koo xam ne nawloo nañ la ñu def na nawle ndax sëriñ Saliou radiyallahu anhu da nga daan wax daf daan wax ne képp koo xam ne yilifoo ko rek sam nawle la te nawle nag daa foor kom ni ko waa réew mi waxee <laughs> eh, li nga xam ne gis nañ ko ci waa Touba Ousmane Sonko yaa ngi wax ne jikko yi nekk ci moom mais popularité bi mu am ci biir Touba mel na ni fii rek la ko am amu ko ci feneen ci réew mi tamit donte ko waa réew mi ñëpp ko bëgg. loolu bettul kenn xam nga Touba. Hmm. boo xamee dëgg-dëgg historique am. Hmm. Sëñ Touba nekk révolutionnaire bu mag boo xam ne marqué na empreinte am ci àdduna yàgg a bañ. Touba hmm. ku leen xam-xam ne ay bañkat lañ 2012 ba léegi amul élection bu Macky Sall mas gañ Touba. bokk na ci njëkk a comprendre le président Macky Sall mooy waa Touba ànd ak moom loolu dafay firndeel waa réew mi ne Touba moom ak jub rek la ñu xool ci nit hmm. te am na ko doon jàng alxuraan ba wax xuddan sëñ Touba ne ko ba boobu rek moo ci solo hmm. jub rek jub sëñ bi daana wax ci njaareem ne kër gi leen rek fi nekk muy ab ku ko fi yóbbu yóbbu nga lépp ko fi bàyyi bàyyi nga fi lépp hmm. Ousmane bi mu ñëwee wane na yar wane na teggin wane na ak jub jub weesuwul nga liggéey administration quinze ans nga défier ñëpp ne ku ma mas a jox dërëm ñëwul wax ko kenn ba léegi kenn waxagu ko léegi nag yeneen yi ci des moom ku ne mën na ko jékki-jékki di dugg ci ay vie privée nit ak di dugg ci doone ni di tuumaal wax lii naa ku ne mën na ko waaye li ku ne mënut moom mooy nga ba mu ne diggante bi ma nekk fii ku ma xamal lu ñaaw ñëwal wax ko hmm. sa télé bii ma ne hmm. euh, ni ko gars yi yaakaare jàpp ne rek ñun dañoo dof wala dañoo nangam nangam déedéet hmm. ñun dañuy xool li gars yi naan xanaa doo xool cest dire gis nañ ne kii révolution bi nga xam ne nekk na ci moom gis nañ jub gi ak dëgg gi nekk ci moom ak yaakaar bi ñu am ci moom moo tax waa Touba yëpp jox ko bopp. Hmm. Touba ay bañkat ñoo fi dëkk ko xam Touba xam ne ay bañkat ñoo fi dëkk. Hmm. dama ci laaxaare li nga xam ne sax mi ngi jëm ci élection yi. Hmm. kii di président Ousmane Sonko bi ngay wax. Euh, li nga xam ne wax nga ko ci ay valeur ci moom yëpp terewul mu jéewul bokk ci élection yi kale euh, nañ ko. naka nga gise loolu nga xam ne jot na fi am moom tamit waaw loolu loolu dafay dafay confirmer waat jikko ju rafet rek ndax xam nga kale woon nañ fi ay candidat yoo xam ne bi ñu leen kale dañ ne bu dul man du doon kenn ah c'est pas la première fois Sénégal ñu ne diw du dem élection hmm. mais kooku bi ñu ko nee doo dem élection nan la def waa parti ba sax mujj hmm. ne hmm. nawloo bu mu àndal nawlool ñu mu mu nawloo ak jikko ju rafet wane na ne même li ma liggéey lépp ba nit ñi nawloo ma teg ma fii ba lépp maa ko def mais hmm. su dul man it jël leen kenn ci man mu doxal. Hmm. xam nga loolu jikko ju rafet moo ko man hmm. Sonko bu ko neexoon ñu ne candidature Sonko la ñuy porté. def parrainage def lépp dem conseil constitutionnel ñu rëkkale ñu ñu xeex xuloo affaire bi jeex. duñu am candidat te boobaa kenn du mer parce que xam nañ ne def na li mu war a def lépp. Ah. waaye tey su fekkee ne moom sauvé na parti bi sauvé a procès bi sauvé na aussi sénégalais yi. parce que nag sénégalais yi ci ñoom la des nag léegi ñu xool ba xam système bii fi nekk bëgg nañoo tàqalikoo ak moom wala bëgg ñoo tàqalikoo ak moom. léegi moom sawaay liggéey na bal bi ba ñëw point de pénalty teg ko ba pare xëccal leen góor bi takk tànk yi ba mu dëgër takk ko ci poteau de corner <laughs> ku dóor mu ku taloone mu dugg ko fa xas mu dugg léegi nag ci ñun la des ñu xool ba xam système bii ñuy xeex ay ati ati at ci ñun la des aussi suñu frères yi nekk ci kaso yi est-ce que dinañ leen génn ci ñun la des aussi moom Ousmane Sonko mi ñu naw ñun ñëpp di ko wax tey ba dajale ñu fii bañ naan tudd nañ ko doom est-ce dinañ ko delloowaat ci loolu ñu ñu ñuy déglu loolu lépp ci des hmm. mooy lan mooy élection moom mu am mais humiliation mooy am le vingt cinq février balaa midi bureau de vote yëpp nañ ko ravagé maanaam buñ ne midi jot na nañ ñëpp xam ne Bassirou Diomaye Faye gagné na réew mi prisonniers politiques yi dinañ dellu seen dëkk maa ngi ciy tudd ko mel ne Ami Dia hmm. koo xam ne force spéciale la ko nguuru Macky Sall di woowe te xamul sax nu ñu téye kuur kuur gu dëgër hmm. di ci tudd suñu frères yi dëkk Touba ñoom Abdou Sylla ñoom Badadien ñoom ñëpp Mm. koo xam ne sa mbokk ngi ci kaso yi koo xam ne sa mbokk ñu ngi koy néewal doole koo xam ne bëgg nga ñu bàyyi sàcc alalu réew mi koo xam ne daal bëgg nga en manière en manière générale mm. système bii ñu doon xeex ba léegi mu jóge fi mm. Ousmane Sonko liggéey na lépp ba teg ko te néewut su ma ko lekkul kenn du ko lekk mooy jikko jërëfe di ñoon wax ci moom rek su ko neexoon mu ne palaat bi budul man ma xëpp ci suuf ndax yàgg nañ koo gis ñoo xam ne liggéey nañ fi dara waaye dañ dem ba ca fee ba ñu xam ne du ñoom ñu xëpp ci suuf moom nag dem na ba ca fin ba mu xam ne malgré ñàkk doon moom gi ñàkk doon moom du yaafusam du ak euh, bañam du leneen waaye dañ koo jaay doole ba teg ko ne ko du yow mm-hmm. waaye moom ci respecté ñi mu àndal tax na mu tegal leen kenn ne luñ kon jàpp leen ci kii bu ko jàppee mel ni ngeen ko jàpp ci man mm-hmm. muy bàyyi suñ mun taxaa suñ Bassirou Diomaye Faye recours bi ci kii defoon bi ci Amadou Ba defoon ci candidature Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye da koo ragal c'est-à-dire Amadou Ba xam na ne bu Diomaye Faye bokkee ci élection yi moom gasi mm-hmm. gis naa seen yenn panel yi ñuy wax ne ñun yàqu nañ dangam naa parce Ousmane Sonko moom mooy existé am na candidat mooy pare nañ ci élection bi moom mooy ay mu def recours. ah bu def recours mooy dong la ci hmm. élection bi di. jërëjëf <laughs> ah, recours boobu dong la am waaw ñu jàkkaarloog ba tey kenn ci waa Pastef ba tey bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bureau exécutif Baye Djily Gaye euh, moom la kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef waaye ci sëñ Cheikh Thioro ba tey euh, Baye Djily ni ma ko waxee ak ñi weesu fekk nañ la fii ci kër sëñ Cheikh ci bisam bi nga xam ne euh, moo ñu fi indi ñun ñëpp tey bu fekkee am nga réaction boo xam ne euh, di nga ko def ci li nga xam ne mooy jëf ji sëñ Cheikh Thioro def de Ousmane Sonko doom euh, yan réaction lay nekk. waaw Fallou xanaa maa ngi leen di nuyu di nuyu waa groupe IYAT ñëpp xanaa di rafetlu lii. Mm. ndax lii day lu war a am mm. ndaxte diggante président Ousmane Sonko mm. ak diggante sëñ seex Thioro day lenn nekkul ñaar parce que dem na ba seen diggante nekkatul ay affaire u frère de parti walla ay euh, politique dem na ba nekk mbiru famille mbiru mag ak ah. mbiru kilifteef ci donte sëñ Cheikh euh, kilifa la ci Ousmane. waaye Ousmane it kilifa la ci sëñ ndax moo ko mooy magam. Hmm. kon bu amee doom duppi ko président Ousmane. Hmm. sëñ Cheikh lim def lu war la. ndax Ousmane. Hmm. jàpp naa ni euh, bu dee jukko ju rafet mooy tax ami turandoo. foog naa Ousmane kenn du ko ëppalee turandoo. te loolu wane na ko fii ci Touba. département Mbacké bii rawatina commune bu Touba bii. lim fi tuddee ci Ousmane ci ay turandoo ëpp na cinquantaine. loolu nag euh, seen gëm-gëm ak euh, procès bi nga xamante ni Ousmane mi ngi ko incarné muy lépp li nga xamante ni si dëgg ci la jëm. Hmm. dëgg rek la jëm. loolu moo waral nit ñi am benn sympathie bi ci moom. Hmm. te loolu nag président Ousmane dañu ko ji. Hmm. ndax li tax ma ni dañu ko ji muy maanaam euh, Touba bien vrai que moo jaboote ñëpp muy leaderu Pastef. Mm-hmm. mais Touba li mu nekk spécial ci biir Sénégal. Mm-hmm. donc loolu président Ousmane Sonko xam na ko xam ne mm-hmm. Touba moom c'est le spécial ci biir Sénégal. loolu nag moo tax Touba mu nekk manche boo xamante ni ñëpp dañoo ànd gëm ko ànd ci procès bi muy doxal. loolu nag bu lii amee. Euh, mu nekk lu ñuy rafetlu rek di sant Serigne Cheikh Thioro ndax nit mën na laa lebal lu baax nga fay ko leneen. ndax su ko neexoon tey ji boo déggee bu njëkk ñu naan politicien pousse oto bu tàkk la wor la. waaw loolu politique loolu lañ baaxoo woon. Hmm. mais ndok grâce à sëñ Cheikh Thioro ba mu xam ba mu xamee moom mooy kan xam li ko Ousmane defal. Hmm. waaw. jërëjëf euh, Ba Djili ñu ngi lay sant di la gërëm yow tamit. ci sa réaction bu am solo. waaw merci hmm. beaucoup. ba tey ñu ngi eh, jàkkaarloog eh, kenn ci waa Pastef Pam Ndiaye euh, ñu xam ko bu baax ci Pastef ak euh, engagement bi nga xam ne am na ko ci moom nag euh, am na ay kàddu yoo xam ne bëgg na ko yëkkati jëmale ko ci jëf ji nga xam ne Serigne Cheikh Thioro def na ko yu tukkee ci wajuru président Ousmane Sonko moom Pape Ndiaye su ko defee dañ koy jox li nga xam ne moom mooy kàddu gi euh, mu yëkkati ci li nga xam ne moom mooy réaction bi nga xam ne bëgg na ci def ak témoignage yi nga xam ne yóbbante nañu ko ko bisimilah Pape Ndiaye. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa IYAT yëpp di nuyu vraiment borom bis bi muy Serigne Cheikh coro di ñaanal tamit liir bi muy Ousmane di ko ñaanal yàlla saxal ko fi yàggal ko fi donc sànq dama dégganteeg euh, mère Khady mère Khady Ngom vraiment maak Cheikh Thioro ñu déggante ci euh, mu ni muy rafetlu mbir mi aussi tamit bett ko ci Cheikh coro mm. puisque gis na loyauté am bi mu def ak euh, Ousmane Sonko hmm. euh, gis na taxawaay cam ci Ousmane Sonko loolu Sénégal yëpp dañ ko seede ci moom hmm. donc aussi moom it ni ko Ousmane def defu ko kenn hmm. loolu man dama toog sànq yaa ngi tooñ mais dama toog Birame Souleye Diop aussi di ko seede ci Cheikh Thioro euh, muy loo xam te lu am solo la donc mi ngi may wax sànq sax naan vraiment na gars yi préparé pour valise bi loolu lañ ci woo patriote yëpp valise bi valise su la Euh, en tout cas mi ngi gërëmaat Serigne Cheikh Thioro Mbacké euh, di ko santaat bu baax a baax a baax ci taxaw parce que doom tamit dafa sax ci xool tey ak or politique bu mu jugee ci politique Cheikh Thioro mbokkam la tey mook Ousmane Sonko ñoo bokk seen xombol tey boo duggee ko ñoom Cheikh Ousmane doo teg ñetti kër te duggee ko ñoom Cheikh Thioro Mbacké kër yaay Cheikh Thioro Mbacké hmm. kon déjà euh, c'est la même famille Mm. beneen bi mooy tamit politique boole leen ngeen gis taxawaayam bi mu taxawaay o niveau du Sénégal Cheikh. Mm. donc loolu dafa doon cant goo xamante ni cant gu rëy la loolu nag maa ngi ko génne ci gémmiñu mm. euh, yaayu Ousmane Sonko di maire Khady Malick Ngom. vraiment muy lu ñu rafetlu bu baax a baax a baax a baax. voilà. jërëjëf ci kàddu yooyu mais bu ma amee loo xam ne bëgg naa la ko laaj par rapport ak réaction maire Khady Ngom ak li mu wax ci Serigne Cheikh Thioro gis nañ ne barki rek euh, ñi ngi. wër ñi nga xam ne ñoom ñooy détenu yi euh, famille détenu yi nga xam ne téye nañ leen ak ñi nga xam ne rey nañu leen ci manifestation wala ci régime u Macky Sall mu ngi fay dem foofu noonu yëpp muy firndeel li muy wax noonu mais tey bu ñu doon bu la doon laaj ci gis-gis bi nga xam ne jot nga ko ci am ci taxawaayu euh, Serigne Cheikh Thioro ba waral mu def li nga xam ne def na ko tey jëmee ko ci président Ousmane Sonko hmm. euh, ban réaction nga ciy def en tant que xam ne nekk nga ak Cheikh Thioro yàgg nga ak moom tamit. Euh, dama xam ci moom loo xamante ci Ousmane. Hmm. te bu doon bakkan benn bakkan lañ joxe boobu joxe ko. xam nga loolu moo gën a sës. Hmm. tey euh, digganteem ak Ousmane daf ko toll fu sore sore sore sore. Hmm. moom laa la expliqué sànq. waaye juróom bu jógee récemment la jógee boo fekk Cheikh Cheikh mi ngi Ziguinchor. la jógee Touba. bi muy ñëw mi ngi woo Cheikh pour ñu dem ci sëñ Cheikh. ñu waroon a gisee. vraiment yàggu fi jógee. donc. Euh, koo xamante ni waajuru Ousmane chaque moment saa yu xelam jógee rek ci moom la jëm si. Hmm. kon foofu familiarité bu mag a mag a mag moo fa dugg. Euh, Cheikh dafa doon jàmbaar ñëpp xam nañ ko. Hmm. Euh, sacrifier na boppam sacrifier laayfam lépp ndax euh, njariñu askan bi laay wax. Hmm. ndax projet Pastef bi. parce que loolu tey moom la Sénégal yëpp di xaar pour Sénégal jaare fi explosé jaare fa jëm ci kanam donc il a pour le projet donc il a tamit pour notre leader. président Ousmane Sonko bu demee ba jëlaat doomam. Hmm. li nga xam directam la te ku xam ne seex sans loyer la. ah mbake euh, Mbacke Mbacke Ousmane Sonko mi ngi doog am. Hmm. donc lu mel noon boo ko defee yaakaar naa ne def nga lu kenn deful ci projet bi Cheikh. mooy hmm. number one ci projet bi à part le président Ousmane Sonko. Euh, ban euh, jeexal ngay jeexale wax ko ñi nga xam ne ñi ngi lay seetaan moo xam lu jëm ci Cheikh Thioro wala lu jëm ci projet bi wala lu jëm ci élection yi di ñëw tamit. waaw santaat Cheikh Thioro. en plus di gëm rek ne. Hmm. Euh, le vingt cinq incha allah février. Hmm. Euh, dañuy gagné au premier tour. Hmm. bu ko defee incha allah li ñu namm Sénégal yëpp ñu def ko incha allah mais Cheikh moom euh, sant bu amul dayoo lañ ko lañ lañ koy sant. parce que lii yëg-yëg bu foor a fort foor la. leer vraiment di woo patriote yëpp nag ne leen nag valise bi patriote yi ñoo koy jënd. macha <laughs> donc loolu lu leer la. valise bi kon patriote yi dañ ko waajal. ni ko waxee. sans royal moom la euh, moom la Ousmane Sonko mujjee am ci li nga xam ne moom mooy trondo muy Serigne Cheikh Thioro niñ ko waxatee Serigne Ousmane Sonko mbake mu sell bi donc ñi ngi sant ñu jàkkaarloog ba tey Moustapha Gaye bokk ci bureau exécutif bu Pastef Touba moom it mu ñëw fii ci bis bi tey dañ koy bàyyi rek mu wax li nga xam ne moom mooy yëg-yëgam tey ci jëf ji nga xam ne Serigne Cheikh Thioro honorable député def na ko tuddee Ousmane Sonko doom ñu nekk fii tey ci këram euh, Moustapha nga nuyoo su ko defee ngay joxe li nga xam ne mooy sa yëg-yëg tey ci bis bi. waaw ah, asalaamaaleykum. Mm. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Fallou di nuyu waa IYAT ñëpp. Mm. di nuyu nekk fii ci bërëb bi ñëpp itam. Mm. ñu ngi nuyu ñëpp kenn kuy turam ak santam. waaw comme ni nga ko waxee rek euh, lii moom wax dëgg lu rafet la. lu rafet la itam mu nekk itam mën na ni lu indi di ndax mm. bu fekkee bu ñuy wax ci fii ci Touba gi ñu nekk nii. Mm. ñu dem fii kër ñu bokk njabootu sëñ Touba. ñu tudde koo xam ne ci niñ ko xamee mën nañ di politicien lañu seen dem tudde ko. Mm. loolu moom mën nañ lu ñu sa gis la. loolu nag boo amee ci ki mu jógee tamit nag moom du doon du doon lu doon lu wër la ndax ku ne xam ne diggante sëñ Cheikh Thioro. ak président Ousmane Sonko. Euh, romb nañ ay ay ay camarades de politique wala leneen mais dañoo dem ba àgg nañ foo xamante Sénégal gépp xam ne seen diggante. Hmm. kon yaakaar naa bu jëlee doomam tudde ko loolu lu ñu rafetlu la di ci am mbégte boobu baax a baax tamit hmm. ñaan suñu borom may ko fan bu gudd ak wér xale bi suñu borom def ko mag def ko magom lislaam hmm. am nañ ci yaakaar lool Moustapha ci ñi ngi jëm ci élection ngeen waa Pastef ngeen war ci am taxawaay ngeen amoon candidat Ousmane Sonko euh, ci dernier moment yi ñu wax ne euh, rakale nañ ko ñu teg ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye yan kàddu nga ci Euh, dénk ñi nga xam ne ñoom ñooy militant yi nga xam ne ñu ngi lay déglu jamono bii. waaw boo nee ngeen amoon candidat day mel dañoo ñàkk candidat. Ah, ba léegi dañoo am candidat kay nag. ndax eh, Basirou mooy Ousmane. Ah. la moom yaakaar naa leer na ci bopp Sénégal yi léegi Basirou. Mm-hmm. mooy Ousmane. ndax bu dee ci jaar-jaar ak taxawaay. Mm-hmm. fépp fu Ousmane Sonko jaar bañ nawee ko ci côté boobu Basirou mi jaar na ko. Mm-hmm. ndax bu dee ci wàllu ay diplôme yëpp diplôme bu Ousmane Sonko am na ko. inspecteur impôt tamit nga xam moo bokk na ci li gën a siiw ci. ci parcours Ousmane Sonko bi ñuy wax. Mhm. Basirou foofu la ne. kon yaakaar naa Basirou mooy Ousmane bu ñu ko waxee ca bu fekkente ne tam nit ku jub. Mhm. tamit ca gëm procès bi tam gisu gisuñu ku ko ëppale loolu. Mhm. kon yaakaar naa bu ñu nee Sonko demul waaye Basirou dem loolu moom six ak la rek. yaakaar naa duuma yi sax bu ñu xefee ci Basirou lay a méttee. am naa ngi lay sant di la gërëm. waaw ba tey dañuy continuer li nga xam ne moom mooy. témoignage yi nga xam ne moom moo fi am ñu ngi jàkkaarloog euh, kenn ci waa Pastef ba tey Maawo Mbaye chargé communication Pastef Mbacké euh, Maawo dañ lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo. waaw ñu ngi lay ziar di ziar internet yi yaa TV yëpp ñëpp ñuy seetaan à travers boobu panel. Hmm. ak boo support de communication. Hmm. di sant Pastef gi yëpp ak militant sympathisant Pastef. Hmm. au national et international. Mhm. jërëjëf Mao yaa ngi ñëw tey ci euh, bisu Serigne Cheikh Thioro euh, ñu gis ko euh, comme ni ko ñëpp gisee tuddee na doomam ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko yow nga ñëw fii ci bis bi ñu lay tàllal suñu micro di la laaj yan yëg-yëg nga ci am ci gis ki nga xam ne moom mooy coordonnateur Serigne Cheikh Thioro honorable député bu tuddee. président Sonko doom. waaw comme ni nga ko waxee rek ñu ñëw fii ci ñaari facette. Hmm. mooy suñ mbokk taalibe suñu sëriñ. di hmm. tudd ñu ñëw fi leneen li mooy ñu bokk benn projet. aussi mu am leneen lañ ci beneen fànn bu mu waat biir projet bi. ba nga xam ci projet bi moom la ñuy dund. Hmm. donc muy mbégte lépp di mbégte nag. tey bu ñu fi ñëwee tey maanaam luñ fi fekkit mu doon confirmation. Hmm. parce que boo dee gis ne Pastef ànduñu rek mais ba seen ban jaxasoo ba pare dañoo bokk ci lépp. Hmm. tey nag Cheikh Thioro dafa wanewaat beneen la xam si mooy reconnaissance. Hmm. envers son son président. muy suñu président ñëpp di président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko nag képp ku nekk Pastef aussi xam nga ah am na la nga xam si par exemple que ginnaaw bi Pastef Ousmane Sonko jàppee ñëpp di ay militant am na benn jàppin ba nga xam si da koo jàpp kii di comment seex je Mhm. képp kuy militant nga nekk national wala international diggante Ousmane Sonko ak président Ousmane ak ak ak ah mhm. Sonko da koo jàpp. Mhm. Cheikh aussi xam na loolu. Euh, benn anecdote laa lay rappeler peut-être soo Cheikh Thioro sax da koy wax. da koy ah. faral di wax lu bari bari. encore le dix bii nii. waaw gis nañu ñuy ñu def suñ conférence de presse tàgguñ ko. te aussi maanaam fekk ñu ci ay àll. commandé suñ préfet daal annuler de façon injuste. Hmm. suñu la dis bi ñu nekk ci àll ñu ñëpp fekk fekk na la foon hmm. ñu nekkoon si les nerfs hmm. ñu di ngeen dénk di micro yi ñuy wax bi ñu waxee ba pare rek la dis bi dana am ci nii wala ci nële Cheikh Thioro moo ko waxoon comme Ousmane Sonko ko dégg loolu noonu seex Thioro wax rek mu ne ko wax nga ko naa ko def kon maanaam téye boobu mu ko téye tey bu ñëwee ñu ne seex Thioro tudde na ko doom du lu ñuy bett parce que loolu mooy reconnaissance nit ki da nga koy tudde doom ngir nga xam ay jikkoom nit ki da nga koy doom ngir téye gim la téye jikkoy Ousmane Sonko ñëpp xam na ko wala Cheikh Thioro gën na koo xam moom aussi que jàpp gi ko jàpp aussi euh, Cheikh Thioro xam na ko loolu moo tax tey bon képp kuy militant wala sympathisant ñu ne Cheikh Thioro tudde na Ousmane Sonko doom da nga ci da nga ci da koy rafetlu rek waaye du doon betteel parce que da koo teg ci la xam si mooy gëm-gëm gi bëgg bëggante bi am seen diggante ak cofeel gi am seen diggante ak dëggu gi aussi parce que boo dee tuddee sa nit sa sa doom ki koy tuddee war nga koo xam mm-hmm. ci ji ci fit yi wala ci lépp daal mm. te aussi bon képp ñëpp am bëgg am doom ñu tuddee ko Ousmane Sonko pour mu jël ci ay juróom-ñaari jikkoom te loolu aussi taw feex la daal daal satisfaction lañ ci am daal moo wala suñuy tànk ak lépp ñëw fi tey mm. Mao ngi gis seen taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi am ci Mbacké ci euh, président Ousmane Sonko jamono bu nekk li nga xam ne moom mooy seen liggéey yéen a koy gën a yaatal euh, boo ñu doon leeral seen waajtaay jëmee ko ci élection yi yan leer ngeen ci. waaw élection yi moom bu ñu leen wax na la waajtaay ci am moom. Mm-hmm. maanaam lépp mat na. parce que mm-hmm. boo dee xool moom Pastef nga koy wax diggante Mbacké Touba. Mm-hmm. ñun amuñu amuñu repos benn yoon. dañ cee nekkoon depuis Pastef nag 2016 laay wax ba léegi. Pastef musta am arrêt ci massification. moo tax tey fi ñu toll ñu toll fi ci département bi. département bi nag bon dañ doon soox. dama doo ci législative yi neuf cent voix ci ay cent mille ay ay centaine de milliers de personnes hmm. ñaan neuf cent voix ah. mais daanaka ay jeunes it xam ñu jàkkaar lool ak ñan lan ah. tax ñu ñun suñ combat ñun ak ñoom nan lañu def ba yóbbu leen retraite hmm. te boo dee xool képp kuy politicien boo bokkul Pastef mën na la yóbbu leen retraite hmm. Pastef fu mu nii moom fii moom bastion politique bu Pastef la département bi loolu aussi taxu ñu tëdd wala ñuy dormir sur nos lauriers toog ne par exemple gagné bi déedéet chaque jour ñoo ci terrain bi boo dee xool daanaka élection li présidentielle yi ñu jub lépp luñ ci war a def. Hmm. Birame wax na ko léegi la coordinateur ak nii je parle à leur par exemple présence. Hmm. lépp luñ ci war a def def nañ ko. Hmm. suñuy représentant de bureau mat na suñu mandataire mat na. par exemple que animation parti bi sax ñoo koy def. te loolu ñun mosuñ cee jóg. kon donc pare nañ bu yàgg. lenn nag mooy présidentielle xëy na dañ dañ koy wax ne dafa dañoo gën dañuy gën a motiver waat ak lu ñuy xew. parce que dañ na bu la tooñee te nga ëpp doole boo dee dóor fexeel ba dóor ba nga xam si dootu lu ñu la tooñaat ñu hmm. ñoo def lu ñu gën a metti hmm. mooy notre leader notre unique candidat hmm. ñu ñu rek ñu recalé ko de façon injuste ci élection yi donc ñun bu leen waxee ne maire lañu fanaanoo maire lañu fanaanoo comme ëpp na leen dool nag danañ ko leen ko wan ci campagne bi te incha allah danañ ko def ba tax na danañ gën a liggéeyaat daal lu liggéeyoon danañ ko xep rek rek pour defaat leen lu gën ñaaw la ñu ne defoon ci législative yi incha allah ki jàkkaarloog euh, le coordonnateur de Mbacké Ahmadou moom tamit bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi dugal président Ousmane Sonko biram mi ngi koy wax léegi di tudd turam mënuñu ñàkk am ay kàddoom moom tamit ci bis bi nga xam ne ñëw na ci euh, fii ci kër sëñ Cheikh Thioro Ahmadou euh, yan sentiment nga am ci li nga xam ne xew na fi tey ci ki nga xam ne mooy mooy coordonnateur Serigne Cheikh Thioro jëf ji nga xam ne def na ko jëme ko ci président Ousmane Sonko. Euh, Fall maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ngi topp seen bi di IYAT TV. Mm-hmm. ah bon ñëw gi nag tey daanaka euh, dara warul ko lu ñëw pour soutenir suñu frère mm-hmm. euh, Serigne Cheikh Thioro Mbacké mm-hmm. te dañuy wax daan def na li mu war def. def na loo xamante ni ñu ñëpp xam nañ ne mois bi mu ko defee jamono ji la ko defee te itam kenn ku nekk comme ni ko Birame ak maa waxee. sëñ Cheikh Thioro relation ak président Ousmane Sonko kenn naatable wu te itam nit la koo xamante ni yëg na ne am na fu ko Ousmane Sonko tee nag mu ngi mel ne fay na naar bi xorom bi daal ndax itam ñun dañuy wax ne euh, fépp fu ñu dem di fa wax wala ñuy dégg lépp rek ci barke Ousmane la kon sëñ Cheikh bu defee lii euh, fay na naar bi xorom ta te mi ngi gën a jëmmal wala muy wax kan mooy président Ousmane Sonko lii day firndeel Sonko. mooy Sénégal Ousmane Sonko da ngay dem ci biir këri mbàkke-mbàkke yi fekk fa turandoom nga dem ci kër ibaadu yi nga fekk fa turandoom nga dem ci kër tijaan yi nga fekk fa nga dem ci canaba yi xaadir yi ci chrétien yi fépp foo dem da nga koy fekk am Ousmane Sonko ci biir kër ga kon Ousmane Sonko mooy Sénégal dam doon wax mooy Sénégal pur et dur donc kooku nag fierté la ci Sénégal yi tuddee ko doom dana dana na la nga gis nit ku mel noonu entité am cofeel ci moom bëgg a tuddee doom lu raar la Sénégal si moom kese ngay gis tarixe yi nekk ci biir Sénégal yëpp waxoon na ko 2017 ne woon fépp laa bokk waaye loolu mooy firnde lii nii foo dem da ngay gis ne Ousmane am na fa turandoo te nekkul lu yomb kon Ousmane bu nekkutoon euh, kenn si nit yi Sénégalais yi yaakaar naa lii mu am du ko am te itam sëñ Cheikh bu ko tuddee tur turandoo nekk na loo xam ne bépp patriote rek am nga yéene boobu. ndaxte turandoo souvent saa boo ko tuddee rek day jël si mu ay jikko te ku nekk fi mu ne nii war sañ am doom ju mel ne Ousmane Ousmane yaay kuy yaay rek bëggoon nga jur ku mel ne moom ñaan tout tànk bi yàlla defal ko taw feex ba li nekk si Ousmane mu nekk si moom ndax souvent Ousmane meññet la mu boroom indi si kaw suuf meññet nag saa bu waddee rek day waddal ay meññet fi bëree bëree bëri bëri ngi mel nga yor benn doomu gerte rek waddal ko suuf day ay meññ lu bëree bëri lay jur ay gerte yu bëri Sonko si kanam tuuti day produire ay sonkooy sonkoy sonkooy donc loolu rek mooy li am solo te incha allah dina gën a yaatu donc sénégalais wax nañ ne am nañ cofeel si moom cofeel goo xam ne am na foo ko nat cofel gi am na natt foo ko mën a tàmm waay donc lii day gën a firndeel rek. Sénégal yi am nañ doom joo xamante ni des na tuuti àdduna bi foo na nga koy fekk comme ni mu tàmbalee Sénégal Ousmane ay mbiram noonu la amul tànki ginnaaw comme ni ko Mouride waxee tànki kanam la am donc am nañ mbégte lool ñëw fii ànd ak sëñ Cheikh ci bis bi kontaan ci lool jërëjëf. laaj li ma laaj léegi militant première heure ngeen bokk ñu fi indi Ousmane Sonko euh, bi ngeen bu ngeen gisee engouement bi ci jeunes yi am wala bi ci sénégalais yi am jamono bii ak yéen ñi nga xam ne daanaka yéen a samp reen yi coono bi ngeen ci dajoon yéen yëg-yëg ngeen ci am jamono bi. waaw bon xam nga xam nga dara booy dugg ba mesuré ko boo xoolee. Hmm. xamoon nañu ne njëlbeen gi fii dong la. Hmm. ndax ñun politique mu son doon seen ité mais biñ dégloo sa waay mu wax ñu ne kii kat yàgg-yàgg li mu bëgg day am que waxut ngir intérêt mais day wax ngir intérêt sénégalais. Hmm. mooy li ñëpp bokk ñëpp dañ cee war a jot. Ah. loolu yow yaa koy bañ a dégg mais saa boo ko déggee da nga ñëw wuy si moo tax fi ne ñëpp wuy si dañuy wuy si ngir seen intérêt puisque gis nañ ne Ousmane moo leen war a génne si jafe-jafe yi hmm. donc looloo tax fi mu ne nii projet bi ñëpp adhéré wu hmm. donc sànq maa ngi lay dégg sànq ngay wax see biir wax ngay wax naan euh, Ousmane demut non maanaam booy xool ci booy xool souvent dangay ngay jàpp ne Ousmane demut mais Ousmane moo dem ndax Ousmane gis-gis la hmm. Ousmane euh, déggin la Ousmane défin la saa boo amee idéologie idéologie bi Ousmane am ak gisin bi Ousmane am yow ni mel na ne om la nga te ne Bachir mooy Ousmane Ousmane mooy Birame Ousmane mooy Maaw Ousmane daanaka dafa dafa li nekkoon moom la def si si Sénégalais dix ans yi dafa liggéey lu bare bëri si projet bi ba képp koo gis rek fu mu taxaw day nga mel ne am Ousmane moo fa taxaw donc kon mën nañu élection yi yem dañu jàpp ne Ousmane Sonko lañ téye mais Ousmane Sonko ba léegi mooy dem ba léegi si logique boobu lañ nekk Ousmane mooy dem. nit ñi ñoo wute mais même Ousmane rek mooy dem ndax nit ñi dem Ousmane lañ topp ba léegi Ousmane lañ topp yow nag boo xool nit ki mën nga am mën nga juum mais soo dégloo Ousmane doo juum mukk Ousmane ba léegi mooy dem incha allah te mooy gañe. Hmm. Mhm. jërëjëf Amadou ñu ngi lay sant dila la gërëm yow tamit.